sëñ sëñ sëñ Alioune Tune da ko yónni woon daal Alioune Tune Africatel ne woon bu ma xëyee naa ànd ak Fallou mm-hmm. ñëwal ko fi ba noppi ci turu Africatel ak turu Lamp Fall yëpp waaw ngir seen diggante ak moom mm-hmm. euh, waaye ñun moom mm-hmm. la ñuy soxla moom duñ jaar si ci yuusu xam nañ fañ koy jaar ndax ñoom moom a bokk kees xam nañ it xat na waaye daa wax rek ne tiis yi mi ngi koy ànd ak yéen dogalu bu yàlla bi mu ngi koy nagu oh. kàdd gi ñu ci waxoon it mm. genn kàddu rek lay doon mm. te insha allahu rabbi fa ma ko war a waxee ak sëñ Lamine mm. danaa ko fa waxee ak moom dëgg la yaa ak sëñ aatu ni ko sëñ Muntaxa joxani ba ma koy wax dégg gu ma kàddu sëñ Muntaxa waaye du ñaari nit mm-hmm. ku mas a gis aatu te xam ko xam na yuusu ku mas a gis yuusu te xam ko xam na aatu lii nag sëriñ Saliou moo waxoon ne yoon wi tarixatul mutataabax la yoonu toppante la te ku topput dara du la wàdd ci sa kaw bu fekkonte ni bi ab oto la damay wax ne ca njalbeen ga ba muy sosu ca màngo ga ca université ñuy def ca màngo ga dara ump ci ba bisub tey waaye su doon ab oto la dama naan la def nga tôlier bi def nga mécanique bi def nga électricité bi def nga peinture bi jàng nga ko ci man koo dawal suñ la suñ la joxoon matériel bi mu nga naa defar oto bi kon sëñ Muntaxa joxuñu ci làmbut yàlla na la ko sëñ Touba téeñal maa ngi ñaan it ci baaxub sëriñ Touba ak màggu ki ngeen di sëñ aat fa mu tëj àjjana na seen mbooleem doomi isbu tarxe yi palet palet yi ñuy def di dellusiwaat ànd ak yow liggéey bi ci barkeb sëñ Tuubaa boo gisee ma ne ma ne ndax sëñ Fallou Galas du fi gan Abdou Khadir Gass dëgg la mu neex mi nga xam ne day yeesalaat njàngam mag ñi moo daan ànd ak moom ñuy ñëw ca daara ja màngoo gi muy wax ñi xamoon daara rudis xam nañ ko waaye ñi fekkewul rudis xëy na fekkee euh, Mermoz mën nañ ko bañ a xam ndax Mermoz ñu ngi fa ñëw ñëw 1989 waaye diggante 81 ba 89 moom mango ga la woon robine sax amuñu ko fa woon robinet ñun dañ daan rooti ji doo a mën a am ndox loolu mooy daara jooju loolu nag suñu foofu la daan jógee di dox ñaata kilomètre di ñëw cinq heures du matin di fa jiitu ñëpp te di fa guddee koo xam ne wanag wuñu daan raxas sax jàppul ne kenn ko war a defal moom mooy futti ko di ko defal kon sëñ Atou dafa jël dundam gépp jéexal ko ci liggéeyal sëñ Tuubaa euh, innahum yarawna ba'iidan wa naraahu qariiban moo yàlla day foto ci sa xol loo xam ne da koy xam waaye nit ñi duñ ko xam looloo ko daboon moo taxoon mu jël léppam ginnaaw bu noppee ci njàng am ay diplôme universitaire ñu war ko mën a jël di ko fay lu dul jeex xolam gis leneen mu jaayante ne soxlawu ma leneen man daal damay liggéey li sëñ Tuubaa ñëw di bale di taxaw ay téere di dajale di jàngale xam-xam di di di di ci yare di fexe ba liggéeyub sëñ Tuubaa bi di màgg ak indi ko université loolu ba mu ko jaayantee boobu dafa jëmbat ci ndimbalal njabootu sëñ Tuubaa rawatina sëñ Abdou Lahad waaye ba mu jëmbatee rooseel nañ ko ko moo màgg ba tey jii ku bokkul is bu sax nga xàmmee ko waa is bu yombatul kon ma eh, meññetum garab googu fi ñu toll nii fii ba Atlanta ma nga fa fii ba Brésil ma nga fa fii ba fu ne ma nga fa kon sëñ Abdou liggéey na liggéey boo xam ne soob na sëñ Tuubaa mu jaarale ko ci moom liggéey bi yeesal boo xam ne bisub démbam bi misaal na ko bisub démb bi sëñ Abdou da leen koo junjoon te nga ci mm-hmm. belal ga ku ko fekk te xam ci dara te lii ngay junj ne sëñ Atou bi am njàngam jeexee mu génn université mm. def ay diplôme am ci ab enveloppe mm. ñëw teg ko ci loxol sëñ Abdoulaye na ko damaa jaayante ak yow fas yéene liggéeyal sëñ Touba mm. du ma liggéey mi danaa liggéeyal sëñ Touba ci sama doolee bopp ak sama xam-xamu bopp boobu jafe woon nag li ci métti mooy li ci neex mooy su la umpoon tey jii bu la sëñ Mountakha joxoñee danaan lu tax waaye dara dala cee musul euh, sëñ euh, Alioune bi wax ne dafa ñëw ngir bokk ak yéen tiis yi nga xam ne am na ci wàllu boppam di ñaan sun borom subhanahu wa taala yàlla bu cat jiitu euh, sëñ aatu ca fam tëdd di ñaanalit jëwriñ yi nga xam ne ñoo ko wutu yal leen yàlla taxawu ba ni ñu bëgg liggéey bi ak fañ ko jëmee ñu àgg fa euh, bu dee ci kàddu yi nag euh, seere ci sëñ aatu dana yomb dana jafe waaye nag bu fekkee li ngay wax yàlla rek moo tax nga di ko wax dana yomb ci yow pour nga wax ko ndax mu nit munta seere lu mu xamut ci it sun borom dafa bëgg na li nga gis te muy dëgg nga nga wax ko Euh, sëñ Atou man xam naa ko ca jamono ja muy nekk université ak ba muy génn université ba nit daayira bu Tarqiyyah wala boog daayira des étudiants mourides sosoo ba bisub tey jii daanaka amu ci lenn loo xam ne ump na ma ci sëñ Atou euh, sëñ Atou dafa am ndimbalul yàlla ndimbalul yàlla mooy gàttandoo nit ki fa nekk wan ko fa mu jëm ba noppi nag leeralal ko yoon wi loolu ci la moom la moo dimbale sëñ Atou ndax moom dong du woon ab euh, étudiant am nañu ko njëkk a génn am na ñum njëkk a génn am na ñum géndandool waaye nag pas-pas ak jaayante inna allaha stara min almuminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna jaayante boobu sahaaba yi booba seen bakkan ak seen alal lañ leen laaj bakkan ak alal la aatu joxe dafa joxe addunaam jënde ko alaxiram bi mu génnee université yor ay këyitam mën a fayu ci mën a doon lu ne ci réew mi la njëkk fam ne këyit yi daal ginnaaw dama ko doon jàng naa ko def gopp bu may liggéey la sëñ Tuubaa jaayante ko sëñ Tuubaa bu ma ci fayu weer ñëw teg ko ci loxol sëñ Abdou Lahad na ko fas ma ci yéene fayu weer dama cee fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa sama dund gépp sëñ Abdou Lahad ànd koog moom àndin woo xamante ne bii ku ne xam ne ne Hizbut Tarqiyyah wala daayira des étudiants murid mosu ñoo def benn réunion bu aatu fekkwu ba muy nekk daayira des étudiants murid ba ni mu nekk Hizbut Tarqiyyah ba ñuy nekk Dakar ba ni ñëwee Touba amul benn réunion bu aatu mas euh, absenté yëpp fekke na ko lu ñuy nasit bokk na ca kon bu fekkente ne bii eh, lu ñuy xam le dama naan aatu xam na ko bu doon alxuraan dama naan la mokkal na ko beqi na ko bind na ko tafsir na ko kon mokkal na ko bu baax a baax jaayante nag dafa mitti mu jaayante dégg na lu ne daj na lu ne gis na lu ne waaye mu fab sëñ Tuubaa teg ko muy référence mu teg ko ci kanamam dundit baat boobu nga xam ne moom la sëñ Abdou Lahad woon wax ne na ngeen xam ne yéen murid yi saxaaba yi ñooy seen baay ci diine moo xam ne saxaaba yi ñàkk nañ seen bakkan ñàkk nañ seen alal rey nañ seen i ci seen kanam rey nañ seeni soxna nangu nañ seeni i alal rey nañ seeni doom waaye teewul rek ñu gis na bi ànd lahumul janna aatu foofu la tegoon tànkam di ci dox nag maa ngi fàttaliku bis bi nga xam ne ci la taawam bii ko wutu te yàlla yàgg lool te ànd ak wér way juróom bi muy ñëw ci kër gi maa ngi fàttaliku keroog sëñ Abdou Lahad kàddu yu am solo yam waxoon sëñ Abdou Lahad dafa toog ci kër gi ci kër gi boppam gii ci jumaa ji woo Hizbut Tarqiyyah gépp ñu fekk ko fa def ñaari kaar nga xam ne booba kaari kuddu yi la ñuy yor nga xam ne boobu daa bi fon jëm kaari kuddu yi la ñuy lée bi ñu agsee sëñ Abdou Lahad dafa def kurus kuréel bii di jàng bu bii di jàng mu muxaddimaat bii di jàng jës bu sëñ Abdou Lahad tiim kaamilu alxuraan di ko jàngal boppam yendoo ganale ca ngan googu ba ngan jeex ci ngoon gi la fab oto boppam fab bàcc gay jox ko oto yabal ci way wayjuru sëñ naa soxna sa surang fabaat oto saanu Ndiaye mbaar ba def ci ñoom Baye mbay ñan fab seet bi def ko ci oto boppam na ñaari oto yëpp abal naa leen ko ñeenti fan oto boobu bi mu agsee keroo golf dañ koo muur ñuy jàng xasida loolu sëñ Abdoulaye waxoon ko ne ko sa jabar ji nga war a am ci lislaam man ni ko yàlla sant te ji njëkka a ñëw mujj ñëw mooy gën a neex kon yaakaar naa ne sa Abdoulaye defu ko ngir bëgg aatu defu ko ngir euh, ab étudiant la bu ma neex daf ko def ngir ndigalul sëñ Tuubaa kon kon la sëñ Tuubaa daan xool ba mu yàgg mën a diw mi ak diw yàlla boole na leen sëñ Abdou Lahad def na ko ci diggante eh, moom mi Mbàkke ak sëñ atu yaakaar naa ne loolu cër bu rëy rëy la pour àdduna di ko bàyyiwaat xel di ko fàttali ko mu mu volontaire continuer na ci loolu ba ci li may wax ne mujjug sëñ Aatu murit bu ne war nga koo mën a ñaan mooy fajarug ajjuma nga génn àdduna ku ne xam ne li yàlla def ay ñaan ci fajarug ajjuma ngoonug ajjuma nga gont fanaan yow mal xiyaam ngoonuk ajuma nga gont fanaan yowmal xiyaam beneen bi ci topp jàmbaari lislaam ji nga xam ne moom la ñëpp ñaan mu yàggu fi ti wér di Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ni mu deme woon ak daara ji ni mu deme woon ak sëñ aatu lu tax sëñ atu wàccut ci jamonoy doomi sëñ Touba yi lu tax sëñ aatu wàccut ci jamonoy Cheikh Mouhamed Sidi Mokhtar lu tax wàccut ci jamonoy Cheikh Mahamadul Amin lu dut ba sëñ Touba doon sëñ Touba di Cheikh Mahamadul Muntaxa mu wàcce ci ay loxoom loolu itam exemple la bu rëy rëy rëy boo xam ne lan moo li mujj ci liggéey sëñ aatu ëpp ci solo mooy këru xasida yi te ku ne xam ne li sëñ Tuubaa wax ci xasida yi mission bi mu njëkk mujj am mooy këru xasida yi mu ne ca di di ca gar bakkanam ba taxawal fondation bi ba mu dëgër ba mu teg ko ci yoon woo xam ne wóor na ko ne lii tu taxaw moo leen gars yi bagage yaa ngoog maa ngi dem àjjana yaakaar naa ne euh, sëñ Atou euh, def na ci yoonu murit sëñ Abla sëñ Abla dafa waxoon ne àdduna ab jaarukaay la ku fi jaar na nga fexe ba rëdd fi aw rëdd woo xam ne ku ñëwate xam ne jaaroon nga fi waaye sëñ aatu rëdd na wala xàll na xàll wu mag woo xam ne ko ñëwati da nga xam ne señ aatu jaaroon na ci àdduna euh, bu dee nag ci ñi nga xam ne ñoo ko wutu di sëñ yuus mi nga xam ne moom la jàmbar ji joxoñ ci sëñ Tuubaa Cheikh Mamadul Muntaxa dama koy wax ne ko euh, lii ñu la joxoñ su doon ab oto la dama naan la dangaa njëkk a def mécanique bi ba xam motoru oto bu paane lu koy yàq nga def tôlier bi ba xam bu kees gi yàqoo lu koy yàq nga def nga jàngu dawal bi ba mën koo dawal def électricien bi ba paanee ak fil nga mën koo defar def peinture bi def usaas bi lépp def nga ko ba nga xam ne bu ñu la joxoon matériel bi nga ne defar oto bi Yuusuf kenn mus ta gis sëñ aatu te gisoo ko kenn mus ta gis sëñ Yuusuf te gisoo sëñ aatu te it yoon yu tarixatul mutataabaxa la yoonu toppante la ba mu juddoo ba fi ne day topp day topp kon bisub tey ji yaakaar naa ne su sëñ Muntaxa toggee joxoñ na leen ñu leen yuusoo ngoog liggéey baa ngoog nëbéy bu mu laal suuf yaakaar naa ne dara du ci laal suuf noo ngi ñaan nag ci màggug yàlla ak baaxug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam darajey seexul xadim mi ngeen doon liggéeyal te ànd nag moom di ko liggéeyal toogaay bi yàlla na mbooleem doomi Hizbut Tarqiyyah ak fu mu mën a ne àndaat ñëw àndaat ak sëñ Yuusu liggéey bi sëñ Tuubaa bi jëmee ko kan ca du laal suuf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu